seeni collaborateurs. Euh, merci Madame la Présidente Adji Mergane. Euh, vous venez de faire une belle démonstration que le budget n'est pas de 7 000 milliards, mais bien de 7 755 milliards. Merci beaucoup. Euh, je voudrais dire que sur ces 7 705 milliards, l'éducation amène 900 milliards. Donc c'est un budget bon, quand même mon évolué. 600 milliards en 2022, 778 en 2023, 900 en 2024. Mais les problèmes demeurent, comme l'a dit le président Oumar Si nous allons dans la région de Sédou, sur le plan des déficits d'enseignants, déficit de 89 enseignants dans le moyen secondaire. Sognué dans le primaire, on a un déficit de 52 enseignants dans le département de Sédou, 36 dans le département de Bunkiling, 73 dans le département de Goudop en français et 18 en arabe. Les classes préscolaires communautaires, Belégui, enseignants, ñoo ngi dans le bénévolat kenn recruté wu leen également les retards dans les travaux du lycée d'excellence la li nekk ba léegi daa waxoon naa ko damay ñëwaat di waxaat la même chose ñu accélérer les travaux abri provisoire yi on est à 46 pour cent de taux d'abri provisoire dans l'élémentaire au moment où je vous parle le lycée de Marsassoum est en abri provisoire le CM de Karsia dans la commune de Diannaba est en abri provisoire déficit de table banc également dans la région de les élèves à 3 dans le, terminer également di wax au niveau des daara modernes on également que programme boobu ñëw dans la région de Sédhiou on ne sait pas les cités religieuses qui soo demee Bogal nga dem Taslima nga dem Kanjalo nga dem Njama nga dem Sumbundu nga dem Mankonomba Dar Salaam Jongeer Sonkokunda Marakissa Medina Souane Karantaba Bangeer Dinaako et cetera maanaam soo jëlee région bi yëpp yooyu ay goxu diine la ñu jàngale diine ñoo ngi yor seen daara dañu bëgg ministère de l'éducation accompagner leen dans la construction et l'équipement des daara modernes au niveau de Kandialan ñoom dem nañ sax ba am un projet de lycée franco-arabe donc ñoo ngi jël ay initiative xaaruñu état bi mais dañu soxla état bi tamit encore accompagner leen parce que soo demee région de Sédhiou ñëpp xam nañ ni vraiment daara yi am nañ fa solo diine bi am na fa solo lu ñuy wax rek mooy ni effectivement moyens yi ñu ci def bëri na mais war nañu xoolaat en tout cas efficacité bi ak performance bi surtout euh, lu may gën a souligner mooy dans l'exécution des travaux retard yi bëri na te xamuñu lu ko waral xamuñu ci entreprise la xamuñu ci passation de marché bi la xamuñu ci donc il faut qu'on trouve des solutions à ce retard-là parce que loolu day affecter le taux d'exécution dans le budget parce que dañuy naan on a dépensé 900 milliards te ci terrain bi peut-être milliards wala milliards effectivement nañu dépensé je vous remercie